ginnaaw bi ñu siyaaree Cheikh mun Muntaxa yàlla fi yàgg tànd ak wér tey jii nag di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci fii ci biir jumaa ji bi ñu jullee fajar ñu toog ak sunu kilifa gi nga xam mooy sëriñ Fallou Mbacké mi nga xam ne mooy taxawu wàllu organisation bi eh, ci li ci jumaa ji ci wàllu eh, setal jumaa ji ak ci wàllu eh, lépp loo xam ne luñ fi indi la tey jii nag ñu ngi toog ak famille Thionène bi nga xam ne ñu am taxawaay lañ ci yoon wi. Euh, lenn li am ci ñu nekk Espagne Mbaye Thion ñu ñëwoon fi daaw man ak moom ñu bokk nekk Espagne euh, mu bokk ci membre xidma yi mu ñëwoon fi nag amoon waxtaan wu waxtaane woon ak daayira bi euh, ba daayira bi itam xamal leen ne jumtukaay yi nga xam ne soxla nañ ko li ñu fi indi tey ci la bokk kon xam naa dañ koy gàttal rek su ko defee ñu jox sëñ xaali mu leeral maanaam ni ñu ñëwee ci jumaa ji waaw bisimilah. ñu ngi ziyaar bu baax a baax a baax a baax di leen ndokkeel si si bis bi euh, mu doon bis bu màgg boo xam ne jëkk euh, du Sénégal rek waaye àdduna sépp ñu ngi koy waajal euh, ñun nag comme ni la ko waxee woon rek nëgën si daaw ñëwoon nan ngir kóolëre gu ñu séq ak sëñ Assane ñëpp ñun ñi nga xam ne ñu ngi nekk Las Palmas yàgg liggéey ak ñoom ñu doon suñuy mag ñu topp seen ginnaaw topp si ginnaaw suñu mag Mbaye Thioune muy suñ jëwrin euh, fii tamit nag dañ fi am nag ay jëwrin ndax euh, waa Lamp Fall FM ñoom itam suñuy mag la euh, sëñ Baydi Thioune moom lañ àndal ren moom la mu gunge ñu sëñ Abdoulahat Thioune moo nekk ni sëñ Fallou Thioune sëñ Mandiaye Thioune ak sëñ Dongo Ngom ñoom ñooy suñuy mag di suñuy jëwriñ léegi daaw bi ñu ñëwee euh, ñu daal ne na may leen nag ren dama bëgg mu gën a kawe ñu ñaan yàlla muy gën di kawe moo tax ren euh, ñu daal di ñëw euh, ñoom ñëpp gunge nu man loolu rek moo tax ma jóge Espagne ngir ñëw ngir bis bi moo tax nag ren dañoo bëgg a gën a yokk parce que suñu xol suñu xel ak suñu xol tamit mooy liggéeyal sëñ Touba parce que dañuy wax ne ñun ah sëñ Touba kenn moomu ko sëñ Touba pour ñëpp la comme pour ñëpp la kon ku nekk war nga caa am sa doxin wa nga war a doxee ñun nag euh, dañ cee am suñu doxin wu nu war a doxee bëgg koo doxe bu euh, doxin doxin wu wu méngutoo ak wenn doxin dañ cee bëgg indi weneen doxin woo xam ne euh, wu bees la moo tax ñu tëba tëb fent suñu doxin daal ne jublu ci ndékk yi te dañoo ñaan yàlla euh, dem ba mu toll foo xam ne daal sax euh, euh, mënuñu ko xalaat ndaxte du man dong ñi topp suñu ginnaaw tamit bëgg liggéey yéene liggéey boobu tey jii dafa bëri dañoo ñaan yàlla bu déwénee ñu lu mat ñaar fukki nit ànd ak ñun dem ba nasaraan si di ànd ak ñun di defar ndékki ñun loolu moom mooy suñu mébét dañoo ñaan yàlla dem ba di ànd ak nasaraan yi di doon plus de quarante personne cinquante personne ñëw defar di defar ndékki ñu xam ne kon sëñ Touba yemul donc ci Sénégal waaye fu ne la ci xeet yëpp la. Euh, xam naa nag duma ci sori noonu ndaaye li may wax rek euh, mooy euh, indi nan tey indi nan quatre cent indi nan. six cent pain indi euh, trois cent petit pain euh, pain pain de pain de nu ko xatee euh, pain au indi trois mat madeleine mooy li nga waxoon rek mooy comme tant que sëñ bi moom ca kanam la jëm daaw dañoo commencé woon ñu ngi indi woon deux cent ren ñu ngi indi huit cent daanaka lépp mat na daanaka neuf cent ci li indi boole waaw mille cent pièces moom la indi boole kook nag indi nañ tamit kaas yi nga xam ne moom la ñuy ndekkee da euh, ndox mi tamit indi la indiwaale nañ ci tamit ñaar fukki junni ngir kafe gi te dañoo bëgg nag ñaan yàlla dem ba ñun di defar kafe yi ak yooyu yëpp di ko indi lool moo loolu la ñuy ñaan yàlla <laughs> duma ci sori ndax suñu jëwriñ mu ngi fi mooy suñ bay dinaa ko nga leeral ko sëriñ Fallou Mbacke waaye na suñu xel dal na ci ndax sëñ Fallou fii bi ngeen fi ñëwee daaw am na lu ñu waxoon neen leen fii moom daa sekk te ku fi ku fi jëfal sañ Touba moom da ngay xool ca kanam rek ku tàmbale woon ci ci ci benn tey nga indi miil nangam <laughs> waaw ñu toog sunu xalifa tamit di koo xam ne sëñ Bay di eh, Lampal FM moom ñëpp xam nañ ko moom ku tudd yoon wi sax danga tudd Lampal maam Cheikh Ibrahima Fall waaye tey tey jiiteem de ku tudd Jumaay Touba da nga télévision Lampal FM. waaw ci wàccaay wi ak ci taxawu ak ci liggéey bi lépp rek ñoo ko ànd kon sëñ bay di xam naa ñu kii rek bu baax suñu kilifa yi ñu àndal yëpp euh, tàmbalee ko ci alxaaji ndongo ngom sëñ Fallou sëñ Mandiaye sëñ Abdoulahat ak soxna yi euh, ñoom sëñ Guèye ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey liggéey bi foofa ca boulangerie ba ñoom suñ maam koor ñoom ñi ñëpp ñu ngi leen di ziar di ziar sëñ Fallou baax da yaakaar naa ñun moom fii moom sunu barab la ndax 2002 2002 la ñu njëkk a def reportage en direct ci Lamp naa fi la jumaa ji man maa ko defoon 2002 Lamp Fall maa njëkk a ñëw fii def reportage en direct màggalu euh, naafila Tuubaa gi euh, sëñ Maam Moor di suñu wëlëre nekk ak ñun euh, Muxaddamatul Xidmatam ñu yàgg am yéene sëñ àll yu yàgg ci am yéene loolu di dox di dox di dox beeg si ci suñu rakk yi te sëñ Babacar jiite leen coo fa ca Espagne waaye nag lépp liggéeyu sëñ tubaa mooy sunu wayjur bu baax wa daf nu daan wax ne lu ñuy laaj Tuubaa dee leen ca joxe ndax li tax bu dee lu jëm ca jumaa ji la bu dee lu jëm feneen la nee na nit ki bu faatoo ban koy indi di ko rob si Tuubaa lu mës a jëf Tuubaa loola day jëf day day génn taxaw naan ko la nga ma jëfoon maa ngi nii ne loolu day dalul xelum ku ñuy denc la nga ma jëfoon maa ngi nii daal di lay tàllal loxo ne la maa ngi nii mën nga fi jëfoon lii waaw kon loolu sant yàlla la te muy seede la waaw seede la te comme sëñ bi nee na xam nga def na ñi ñi may liggéeyal waxu waxuñu dëkk nañ àjjana kese waaye ci digg àjjana la wax ne lazina saara uli xidmati fa lahumu diyaara wastal jannati ci digg àjjana lañ dëkk kon loolu sant yàlla la te nag fajal ajo yi ñu may liggéeyal it kon ñoom ñi tam seen initiative lu baax la ndax fa nekk sori na nekkuñu faak ndey nekkuñu faak bàyyi nekkuñu faak kenn waaye taxut ñu génn fa leen seen wayjur tegoon muy nekk taalibe sëñ Tuubaa rek ba faw na ak seeni wayjur sunuy wayjur ak ña leen jiitu ñëpp liggéeyal sëñ Tuubaa rek kon seen xalaat bii ni ko ni nu ko waxee nag yàlla na ko yàlla mottalee noonu ndax euh, ñu ngi koy jëfe lépp di ko jëf ci mbokk yi di ko jëf ci njaboot gi di ko jëf ci euh, wayjur yi kon loolu moom tam moo nuy sawarloo ñun tam ñoom bu ñu jógee ñu mën a ànd ak ñoom ñëw kon ñu ngi sant bu baax di gërëm euh, sëñ fal daal euh, liggéey bi moom loolu ñu ngi la koy seddeel ci suñu rakk yi tam ne ñoom ñu ñu ñu am Pastef lañ te ni mu ko waxee nan ñaan yàlla mu yokk bu baax a baax a baax ba ba bu ëllëgee mu doon loo xamante ne ndax euh, ni ngeen di liggéey ak ñun ci wàllu jumaa ji loolu liggéey bu rafet la ndax bu njëkk weeru koor dañ daan yenu matériel yi indi ko léegi nag loolu amatul ñoom seeni seen signal la ñuy jël pour Lamp Fall mën a def direct naafila loola it nag euh, liñ ciy sant sëñ Aliou mooy ndax nit tam bu defee lu baax danga koy wax ñii toog ñëpp ay rakkam lañ sañ Aliou te yaakaar naa ne li nga xam ne séq na kook waa jumaa ji ci wàllu Sonatel wàllu internet bi ak lépp ñoom xam nañ ko te ba mu ko waxee ak ñoom ba tey dara daggu ci mu ngi koy def tout le siñaal bi ñuy jël ñoom ñooy jël di ñu jox te dan daan jëkkati ñëw ak sunuy caméra waaye nag léegi ñoo ñuy jox te loolu yëpp liggéey bu rafet la ndax xam naa fii ñi ñoo fi féete waaye fee ña fa féete it eh, xam nañ bu baax jëf ji nga xam ne bi ak pastef ji nga xam ne ànd nañ ko ndax douche yi bañ ko indee bañ ko defee compresseur bi dafa ne waa mu xaddimatu xidma ñooy defar jumaa ji mbaal ma jël compresseur bi jox leen ko ñu ànd ak sëñ Maamoor xam sa diine ñëw jébbal leen ko mooy compresseur ba àndoon ak douche kon loolu maanaam daal positif la ñoom ñii daal sëñ bi nangeen leen ñaanal waaw ndax ñoom fanu ne sori na te it eh, taxut ñu jàdd seen yoon ñu ngi ci seen aw yoon ñu ngi ciy dox ñu baax lañ ñu ànd ak seeni ñu fonk seeni kilifa lañ da ngay leen ñaanal bu baax li ñu man leen bu dee ñu gën a man lu ko raw ndax sëñ Babacar moom nga xam ne moom sama man maa topp si moom moom dafa mun moom mooy leen fu nu jëm moom moo leen fa yóbbu ndax man ak moom euh, sëñ 73 lañu ñu sam papa jébbal sëñ Murtada kon loolu nekk na loo xamante ne bii kon kenn ku ci ne daal mënoo ñàkk a def li ngay def kon daal ñu xam naa seen liggéey fi mu ne xat na ndax ne ñi leen soxla bari na waaye daal li gën a am solo mooy seen li ñu sumb fii ci senegaal ngeen ñaanal leen yàlla àggaleel leen am nañ ay xalaat yu rafet ñu ngi fiy def ay liggéey xale yi di ci jàpp di liggéey ay boulangerie ay jigéen ñi ñu ngi leen di jàppale ak yeneen ak yeneen ay projet yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne ñoom xalaat nañ ko mu ngir def ko ci Sénégal kon tam na ngeen leen jàppale na ngeen leen ñaanal yàlla may leen gudd fan may leen wér may leen nu leen ba li nu xalaat li nu sumb lépp daal sa borom àggale ko ci barke Serigne Touba xëy na yow ni nga ko waxee ak mbay ni ngeen miinante xamante mbay moom ku ko xam xam ne moom amul fenn soxla fu dul amul fenn fenn soxla fu dul Serigne Touba waaw moom du amul soxla ci dara ba gan sa euh, Mbàkke Mbàkke sax bu ko fekkee Espagne mbay dootul liggéey ci itteem lay ne ba bu muy ñibbisi sëñ xabaan dafa ñëw di ma ko wax mu sëñ Murtada di ko sant di ko gërëm ci taxaw gam ko fay taxaw bu fa demee kon loolu euh, sant yàlla la loolu buñ ko waxee ñun dañuy kontaan. dañuy bëgg ndax ci loolu rek la ñu xam loolu la ñuy jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa nga xam ne mooy saytu mooy say ñooñu mooy matériel bi ngeen fi indi muy saytu setu jumaa ji ak taxawu jumaa ji ginnaaw matériel bi tam ni ngeen xam ne ay doomu aadama ñu ngi ci biir yoo xam ne ay boromi ruu la di liggéeyal sëñ Tuubaa ci biir jumaa ji kon ñaari liggéey la muy matériel bi ak li li jëm ci biir jumaa ji loolu tam ñu ngi koy soññiwaat ñëpp nag su ko defee ñu gën a dugalaat gën a jàppaat rek ba ni ñu ko sëñ bi sante ñu ñu defe ko noonu xam naa sëñ bi moom euh, xëyal ngeen sëñ bi ci ci liggéey bi gontal ko fanaanal ko waaye moom tam toogaay bii noonu la toogoon di leen gàttandu waaw bi ngeen xëyee suba ba léegi xam naa ci suba la moom mbéy woo ne ma tàmbali nañ ko ci suba ki bi ngeen ñëwaat fi ñoo ngi noddi fajar waaye sëñ bi tam amul jën yitte dul toog fii ànd ak liggéey bi ak di gàttandu ñi fi indi liggéey bi sëñ Tuubaa bi kon sëñ Fàllu waaw di jotal am nuyoo ginnaaw bi ñu ñaan leer suñu Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne moo fi toog si Xaadim suñu mën doole ko ak wér gën fee yàgg dee nuyu ci tur suñu Abou Sow imaam mi nga xam ne mooy njiitu daayira Moukhaddamatoul di jaare nuyoo boobu nag ci loxol suñu Assane Diop mi nga xam ne mooy mboolem li bitim réew di taxaw taxawaay rafet tam tàmbalee ci Espagne di nuyu fi mu cuuneen bi nga xam ne yéen fi ñëw tey. sëñ Xaadim ñu ngi jot am nuyoo di ko jaar la ci yow yàq sëñ bi ak ñi ngi àndal ñëpp ngi jot ne ko sëñ bee cun ak mboolem képp ku bokk ci cuuneen rek di amal mbégte bu baax itam nag ci bi suñu borom dafay tofeex ñi bokk teewloo jotaay bi ci mbébét moo xam amoon nga ko liggéey sëñ Tuubaa ndax ñëwoon nga fi daaw mbébétoon ko def ca tàmbale ren tamit nga yokk ci jéego yu gën a kawe ñoo ngi ñaan tam mu gën a yokk gën a kawe ba fépp foo xam ne amu yéene àgg fa rek ngeen day jaaw la koy njot barkeb sëriñ mi ngi tax ngeen di ko liggéey liggéey bi xam ne nag moom mi ngi nee seen sama ko daanaka juróomi di jaaraat te lii ngeen def kon ndimbal la ci ndax su fekkee dafa am ay nit yoo xam ne dañoo jaayante bàyyi seen waxtu bàyyi seen joxe seen doole ñëw ngir di taxaw gën a Sëriñ yi kon defe naa itam bu fi sëriñ bi nekkoon moo leen jox boppam teraanga ndax kenn ku ne xam ne sëñ bi amoon na mébét ci liggéeyal boppam ndax dinaa wax su suñu su noonu xar ñaar da xar ñaar benn bi di liggéeyal bi ci des kon nag bu yàlla dafay tawfeex ba yéen ngeen am mébét moom yi di lig di taxaw ñi nga xam ne ñooy taxaw liggéey suñu tubaab bi kon loolu mbir la mu kawe njort dafa mel tam foog te fi seen waajur yi la kon tam ñoo ngi ñaan ñoom seen waajur yi jot suñu borom doolu seeni xewal ci fañ nekk lañ doon yaakaar ci yéen suñu boroom gën leen ko tawfeex bañ dajeeg loole te yoon wi ngeen jaar tam rek mooy bi leen tegoon kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen soñ ci li ci kanam tam nag suñu sel baaxoo def rek di sant weesu kon di soññoo ci li ci suñu kanam di soññ mbooleem mbokk tam ñu àndal yëpp di leen xam ne liggéey bi daal rafetal ngeen ko te matal ngeen ko itam di leen xamal na itam nag siyaasat mi ni mu ko waxee rek nga xam ne lu ci bëri ñaari baat yi soññee léegi nii nga xam ne sëñ Muntaxa moo ko waxoon ci ma ko wax kat lu yàgg la na boobu téyeeku téyeeku jotaay bi ndax moom ëmpale wu leen ne Moukhaddamatoul Khidma naka jekk sëñ Muntaxa dafa nekkoon seen àndandoo ci liggéey bi nga xam ne buñ mas a am matériel si ñoom indi ko fi sëñ Muntaxa mu lañu boppam taxaw réceptionné ko ba mu nekk xam sëñ Tuubaa kon nag loolu doon lu kawe njort ci ñun ndax ni ma ko waxee rek dama la ànd yéen moom suñu taxaw dafa wax dama la ànd yéen di jëlee ndigal tey nag boo dee may joxe ndigal teg ci lu yéeme daal kon daal ñu ngi sant yàlla bu baax seen seen kon ñoo ngi lay jot wàccante gi ci mbooleem mbokk yi nga xam ne say wëlal lañ ndax yow ku la xam ko ne xam la xalwat xidma bañ xam ba say profil sam xalwat xidma asan jub xalwat xidma moo ci nekk booy laajte sax boo ne asam xalwat xidma daal di feeñ kon nag ñu ngi taxaw xalwat xidma ñoo ngi ñaan suñu borom moom itam taxawal noonu ci fànn yëpp rek waaye itam nag mun ñoo ñàkk euh, cant mbokk boo xam ne kenn la ci yéen di suñu Aliou nga xam ne waaye suñu fële yàlla dogal mu àggale ko keroog bi mu àggalee bam bam bam war koo julli dafa dem ba ci bare mu toog daane fii la jëmantoo la ñun soo ko weesoo it jaral nga ko. ba ñu tàmbali euh, xayal jumaa ji sëñ Fallou mi moo jiite liggéey boobu. léegi eh, daaw lañ fi amoon yitte jooju waxoon ne jumaa ji buñ mënoon a am échelle électrique boo xam ne day mën a jóg fukki mètre ak juróom nga xam ne kii monter pile yi day mën a taxaw monte ko ci monter wu jàppandi waaw dolli woon nañ ci saxit eh, setar na waaw bi ànd ak moto yi woon nañ ci tamit lu mel ne oto setar na boo xam ne day doon oto ndox boo xoolee sax fan yi ñu ngi publier bi ay vidéo di wax naan bàq yi dafa manqué ndox ak yooyu ci màggal gi daaw di ko wane te loolu ba ba ba ba loolu xewee daaw bañ koy wax